avec jàmm remporté na son Sénégal 7 sur ba biir Tëngéej du hip hop di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ñuy suivre à travers Sénégal set donc euh, di la dalal jàmm donc euh, di am mbégte gu rëy di am vraiment de bonheur parce que man yow dañu comme yàgg na lool yàgg na lool donc c'est un bonheur de partager un plateau ak yow. man Paul comme li ma laaj mix laay laaj ko waa parce que ah. mooy constance bi si game bi. c'est vrai lan moo waral lan moo waral constance su Papa Sow si biir game bi boobu ba léegi ñu dégg Papa Sow depuis. depuis xàcc de tape je pense. c'est vrai depuis X-Tape. x ah, déjà man <laughs> leen. Mhm. Euh, ñi ma xam xam nañ ne ñun balaa ñuy génn projet balaa Sénégal duñu xam dañ naan def ay concert suñu dëkk muy fees dell donc amoon nañ public amoon nañ amoon nañ reconnaissance suñu biir dëkk donc pour man euh, constance bi premier facteur bi c'est la passion faut faut vraiment aimer ce qu'on mm-hmm. parce que tey jii en fait une carrière moom c'est y a beaucoup de day métti parfois trop trop trop surtout être un artiste au Sénégal j'ai un ami ma faut vraiment être fou pour vouloir donc euh, pour man li si njëkk mooy mooy mooy passion su passion bi rombee nag après mooy comment se réinventer comment se réinventer c'est essentiel Darwin danaan ceux qui survivent ce ne sont pas les plus forts ni les plus intelligents mais ceux qui ont la capacité à s'adapter tey jii nix généra su rabee tey da foog ne génération bi bees bi la boobu ah, man fan yi passé laa jof benn freestyle drill sànni ko gars yi naan uh-huh. pour parce que xalaatuñu ma parce que pour man quand on est passionné su su passion bi ci yow mm-hmm. du am ay doo am ay limite tu le fais par pur plaisir tey jii Messi su nekkee ci biir terrain bi Messi ma woon il dix ans ak léegi nii. Mhm. su yoree su di bal da ngay xam ne kii dafa bëgg vraiment li la passion elle essentielle et savoir aussi s'adapter passion boobu noonu soo ko amee. Mhm. ñëpp xam tendance la quoi. c'est bien vrai que na am benn affaire boo xam ne mooy ossature bi mais day am tendance quoi. c'est vrai day changé. waaw léegi pour nan ngay mën a. exercice naviguer ci exercice <laughs> exercice man moom franchement en fait euh, samay xarit yëpp dañu may xasee loolu man je suis parfois mbir day xew ba xew bi te du ma ko yëg. parce que yow doon nañ euh, trap. Mhm. bi muy xew gars yi ñoo wax naan Papa Papa lu tax trap <laughs> mais Papa dañ seetlu dafa bàyyi sax ba trap di xaw parce que parce que en fait jamais vraiment mosuma dox ci tendance. Mhm. man mosuma am fixation ci tendance. Mhm. man je me suis toujours dit que la musique elle est universelle tey jii sooy déglu tey le dernier album de J Cole elle est genre elle est soo xoolee musicalement elle est pas tendance par rapport à ce qui se fait parce que actuellement ay drill moo xew ay nangam sangam mais il est beneen la dem pour man faut déjà avoir une identité nga am identité am am ba yow soo soo su ñëpp du def lu weex soo ñuy def lu xonk sax ñu ne ah d'accord kii moom lu xonkam nice na quoi mais léegi sa lu xonk loolu comment faire pour di ko évoluer loo à travers le temps loolu moo ci am solo man. dama tam exercé wu nag dama tàmm exercé wu quand je vois lu bees lu génn musique bu bees mm-hmm. je me rappelle en 2007 mm-hmm. bi Canabasse yi génnee Papa Shit mosuma woon rap yi House mais dama dem jënd yi dama mm-hmm. parce que dama bëggoon mën loolu <laughs> que parce que man j'avais déjà mon truc yow xam nga ma ñun on était très euh, euh, influencé par Bone Thugs and Harmony on était influencé par ay Bootcamp Clique en fait on était très Kana quoi sama grand je me rappelle Kana Gambi lañ ma euh, à l'époque donc quand Canabasse est on a j'ai le temps d'apprendre ce qu'il faisait donc tey jii man noonu laay def nag léegi loolu mooy sama quotidien ba léegi quand je suis la maison tey quand j'ai vu Dip euh, arriver déferler avec la trap et tout ça j'ai pris le temps ma déglu ce qu'ils font ce qu'ils mhm. te comme soo amee passion nga am talent surtout parce que aussi le talent c'est important dama koy à chaque fois mhm. le talent c'est important nit ki sooy def mbir fexeel xarañ ci donc man su ma gisee tey dara xew même su ma génn dama koy léegi amaana peut-être dans le temps mën naa ko soxla utiliser ko di gars di soog a génn drill bi di soog a xew parce que ñu bëri ils parlent UK drill UK drill man euh, bu Chicago laa njëkk a xam quoi avec Pop Smoke ak gars yi noonu man bu Chicago Chief euh, Keef sax depuis Chief Keef quoi man yooyu bu ma ko déggee laa ne d'accord j'ai commencé à écouter un peu xool gars yi li ñuy def yan technique la ñuy utiliser mm-hmm. nan lañ ciy rabee ma dem ba maîtriser ko ma denc ko dina ma jariñ à un moment donné. léegi ci biir euh, professeur. Mhm. ñëpp xam nañ ne xamee nañ ne lyriciste. Mhm. yow noo gis yow euh, à travers le temps. Mhm. noo gisee ne euh, maanaam gars yi seen seen seen seen mbind mi si boppam. gis nañ ne dafa am ay mutation am ay évolution. noo noo gisee genre booy léegi. par rapport bi nan gisee ay taaru mbind. c'est vrai xool ay assonance. pourtant mu ngi fi ba léegi de. non mi ngi fi ba léegi <laughs> daa am lu ci yokk. c'est vrai maanaam léegi da ci yokk da ci yokk loo xam ne maanaam des fois booy. suñuy wax. des fois mën nañu wax benn affaire nga déglu ko. c'est vrai mais mën na am lendemain bi nga koy door a <laughs> c'est important. Euh, sànq rek en coulisses on parlait d'un artiste de Kër Mbaye Fall qui s'appelle Gunmore. quand j'ai Carrelage. non c'était une gifle gifle loolu quoi. Mm. man en fait dama man dama bëgg loolu. parce que man je me dis que bu dee la ñun dañuy wax. Mm-hmm. xam nga tey on a parlé amuñu baat yu si Ndour. Mm. am amuñu baatu ombrezane wala faari freddy donc duñu ay waykat donc dañuy wax bu dee li ñuy wax ki ñuy déglu moom mën na wax la même chose kon pourquoi ñu war nekk ay artiste non kon da ngay da ngay doon déglukat kay ngay dégg déglukat rek point donc c'est-à-dire pour man pour mu am pour apporter en plus foog ñun ñu mën a dem dem ñu mën a dem ci dimension boo xam ne ki ñuy déglu danaan waaw parce que l'aspect amazing l'aspect waaw dafa important ci rap man loolu moom mi gën a neex parfois j'aime bien ma def son nit toog ay at après na mu ñëw baa gisoo ko comprendre li nga doon waxee. Ah, et pour man loolu c' est essentiel. Mm-hmm. c' est très important te génération bees bi ils l'ont compris parce que ñun soo xoolee génération bi ñu jiitu parce que man su may wax parfois dañuy foog ne Palla man maa ñëw juste avant booy <laughs> waaw ma génération bi juste avant booy voilà yow fekkee yow fekk yow fekkee nga lépp donc moo tax euh, su may man man euh, su may su may gis booy di la génération d' avant elle était très lyricale mën nga citer Gofu mën nga citer Ndongo di Maxi Crazy donc ñuy ko sax nii <laughs> Maxi Crazy xam nga mën nga citer Keyti en fait les gens là quand ils écrivaient il y avait fond bi da doon présent mais la forme parfois laissait à désirer laissait à désirer mais c'est normal parce que ñun dañu amoon hip hop bu jeune donc ñoom genre li information démocratisée wu léegi information mel woon noonu ñun tey dañuy yeew li xew Euh, Angleterre li xew États-Unis li xew si réew yëpp ñun dañ koy am en temps réel mhm. donc maanaam on a les mêmes armes que les autres mhm. mais avant c'était beaucoup plus compliqué parce que internet n'existait pas comme mhm. léegi ni mu amee léegi donc euh, soo xoolee booy léegi ça a commencé depuis ay 2014 2015 on voit da ngay am fond am forme parfois damay wax ay nit ñi ne ma non booy bind ñu ko mais ma leen non non comprendre leen de en fait c'est la forme qui est différente soo jàppee léegi soo xaaree ci booy ñu defal la comme li Max doon def wala ñu defal la comme li Bibson doon def mais tu vas perdre temps donc pour man foog nga déglu leen par rapport ak eux ce qu'ils font par rapport ak lii maas ak ñoom su ma déggee say kàddu yow da maanaam su ma koy synthèse mooy booy mhm. ñooy ils ont gardé cette lyricisme boobu dañ ko kii ba pare loolu mooy am rap galsen mooy ADN bi liñ ci dolli mooy mooy forme bi quoi dafa maanaam a neex a dégg ils ont mis plus de forme ci biir tey jii quand tu entends Dip rapper en c'est doo xaar forcément li ngay xaar sama texte tu vas pas attendre des rimes tu vas pas mm-hmm. attendre yooyu mais il a il y a beaucoup d'assonances il y de en fait euh, nan laa ko mën a wax beaucoup de mm-hmm. métaphores il y a beaucoup de en fait utilise mais surtout la sonance est très présente dans son rap mm-hmm. donc euh, soo koy en fait man foog nga déglu ko ak noppu génération bi mais tey jii quand tu t'attends à ce que mu defal la li gars doon def pour man ça n'a aucun sens que ça a été déjà fait donc booy parce que pour man l'aspect lyrical l'engagement social politique et tout ça mooy ADN hip hop Galsen loolu mu ngi fi mu ngi ci booy ah mu ngi ci booy mais c'est la forme qui a changé mutation la te mutation boobu noonu nag pour nga am pour ñun pour ñu am longévité mm-hmm. foog tamit ñu mën a bokk ci mutation boobu noonu di mën a update di mise à jour installer application yu bees yi <laughs> c'est normal euh, maanaam su euh, fekkee tamit am nga benn conseil boo leen jox côté pour man te bien placé pour wax pour pour pour wax ak ñoom ci côté lyrique ci côté. bind mhm. quoi soo amee loolu leen di dolli lan lay doon quoi. identité. Hmm. une identité parce que tey parfois da ngay gis génération mais ñaar wala ñett ñoo ci parce que li a à chaque fois avoir un dip. Hmm. c' est bien dans notre mais avoir dix mille dip. amul sens. Hmm. avoir un pispa ou un kii parce que pour man artiste da ngay identité da ngay dire ti peux voir tey beaucoup d' artistes yoo xam ne après ils posent sur les mêmes parce que drill bi presque même chose la à à quelques détails près trap bi c' est la même chose mais artiste bi mooy ñëw yokk ci valeur ajoutée. yokk ci identité moom. parce que ku ci nekk si ñun. am nga loo xam ne moo lay yi ak ñeneen ku ci nekk si ñun am na lu suñu borom def ci am na lu suñu borom def si yow loo xam ne mu nekkul ci man. donc te en plus am nañ histoire quoi. am nañ histoire am nañ background te loolu c'est c'est loolu loolu c'est important un dafa war a parfois li may jël amam di ko teg ci mbir musique bi man c'est man loolu daf may attirer ci rappeur man quand je t'entends man faut ce soit vrai man yàgg naa ko wax gars li ma jig man du moo jig ñeneen ñi mais bés boo déggee man la damay paap sama Range Rover sama biir son mooy Range Rover moo gaar sama buntu la parce que man sama rap amul maquillage quoi li nga dund kese ngay rab. kese man mooy sama parce que en fait xam nga man soo xoolee yow xam nga ne galérien la donc j'ai euh, Dangu laa juddoo yaroo màggee xam nga dem màggee passe sama benn partie Sicap sama papa néew doole xam nga am logement social stade Ngalandou Diouf dund lu bëri bari bëri xam nga subir ay tentations yu bëri bëri bëri daanu fu bëri bëri c'est important défaite yi. xam nga ñun dañuy am tendance su nëbb suñuy défaite man samay défaite dama koy wax sama biir musique parce que man je me dis que tey jii ban défaite ci moo la gën a marqué wala moo la gën a yokk jom pour nga bi bëri na xam nga man moom suñu borom daa def man underrated artiste la maanaam tey jii ñu bëri tey jii fi ma egsi nii sax nit ñi xalaatuñu ma egsi parce que à chaque fois man je suis pas bling bling je suis pas mosuma gis ma takk montre mosuma gis ma takk chaîne mosuma gis may chainal parce que ñu bëri en fait dañuy xaar lool ci artiste un artiste c'est une image man j'ai jamais man j'ai toujours relégué cette image là au, au, <laughs> du placard parce que man je me suis toujours dit que man je n'ai que mon talent man je veux être le rappeur lambda le rappeur sénégalais lambda gars bi nga xam ne mooy toj sa concert boo liggéey nga romb ko mu toog ci café gi nii naan café man liggéey boobu laa bëgg nekk. Mhm. les percus. j'adore ça. lan moo lay lan nga ci gis quoi. man de bi ki ma ko mujjee ban apport nga gis que ne loolu war na mën a yokkal. non ki ma ko man ki ko mujjee ne ko en fait contraire bi moo waroon jaaxal nañu. Mhm. un seen un un brésilien qui qui joue au football. Mhm. warul yéem kenn. c'est naturel. voilà tey jii un sénégalais qui fait la lutte. c'est naturel warul yéem kenn quoi. Mhm. parce que tamit je me dis que le rap culture universelle. culture universelle boo xam ñëpp ko bokk. chinois beeg japonais beeg américain beeg africain beeg lépp mais ku ci nekk à ton niveau. da nga ci war a dugal sa patrimoine culturel man daangu laa juddoo tëgg sabar laa njëkk mën karab du son boobu nga xam ne mujjee nañ ko gis mooy son bu yëngal bi yëngal yee waaw loolu moom mën naa ne yow <laughs> te ñii tëgg noonu yow ci rythme boobu noonu nga parce que ñii doon def loolu yéen a bokk ko ñeen a màggandoo ñooy ànd kooraa ñooy ànd depuis bi ñu juddoo ba tey jii saa à dire fait man dama nekkoon booy di ànd ak ñoom ñu dem tëgg ay simb mm-hmm. dem ay tëgg ay sabar est-ce que mm-hmm. mais j'avais amoon maturité à sama début carrière amoon maturité pour fësal parti boobu parce que dama doon xam nga ñun rab bi tam nga dañu bëgg ku nekk grillé quoi. Mm-hmm. pour ñoom soo jëlee ay. voilà te pour non te. te pour te pour. dund dund nañ ci affaire yu mais. c'est parce que gars yi dañu wax koy <laughs> fekk da nga koy xam nga peut-être rab bi rab bi day nooy wala yooyu. Ah. mais léegi suñu demee ba gis que ne ay boy comme Samba Peuzzi ak ñeneen ak ñeneen. cent maanaam loolu moo leen gën a sax fasal soo moo gën a moo par exemple. mais parce que ay son yooyu ñoo gën a jar. parce que xam nga moo tax benn mbir ñun on a fait une ñun suñu ñun quoi surtout samay mbokk artistes yu bëri. en fait on a bâti un on a bâti un mur entre ñun ak suñu public. il y a un public rap galsen qui aime le rap. franchement di ko support. mais il y a un grand public public sénégalais boo xam ne ils ne connaissent rien de la culture hip hop ils ne connaissent rien de la culture américaine. ñoom ñoom ñoom ay sénégalais lañ quoi. te ay fleuve Sénégal mooy neex. te jii pour man li war a bett nit ñi mooy un artiste boo xam ne du def dara loo xam ne day saf Sénégal. mais tey jii man ma def ma ma laal percu ma ñàkk laal percu su ma duggee sama kër su ma génnee studio dugg kër ga sama jabar day play ay waare sek di ko cons tranquillement à l'aise te saw te saw fu ma de ba kii rek ma pàkkar ji ma ginnaaw suba teem nga cax dama koy feccal mais c'est-à-dire pour man c'est un débat stérile la ma ko yàgg wax gars yi man leen warul bett kenn un Sénégalais jël patrimoine am di ko def ci biir musique am pour man soo ko defoon sax moo war a jaaxal nit ñu ne la pourquoi defa ko parce que ñun dañu ñun nous avons été un peuple qui a été esclavagisé qui a été colonisé ñun dañu aliéné dem nañ ba benn moment su suñuy télé suñu bëggee sax nit ñi ne waaw li rafet na dañuy ut ku xees parce que on a ce complexe là de ñun lépp lu ñu moom mm-hmm. dañu am problème mu fësal ko loolu seen naturel en nu te man je de la man man je suis un pur adepte de Cheikh Anta Diop dama judd ci loolu màgg ci loolu dem université jàpp ne point de départ émergence wala développement au Sénégal mooy ñu jubboo ak suñu bopp jubboo ak suñu culture jubboo ak suñu histoire te loolu ça passe par ñun ñi nga xam ne mm-hmm. ñun ñooy ñun ñooy les artistes ñun ñooy la face visible de l'iceberg mm-hmm. donc tey jii li may wax chaque fois bi may def trap xam nga ñëpp dañu doon naan defal trap defal trap def moon trap mm-hmm. mais may njëkk a def trap lu ci suñu yoon la ay sabar laa ko defee. c'est un message quoi ba pare def ci un texte engagé. Mm-hmm. mu neex ñii déglu ñii ñi bëgg rap dañ ko bëgg. Mm-hmm. ñi nga xam ne tamit ils sont ci beneen jàpp dañ ko dañ ko dañ ko bëgg pour man se pour man c'est important. Mm-hmm.